pour euh, ay dons yoo xam ne moom la doon def fii ci euh, ñi nga xam ne ñoo fi dëkkee ñi nga xam ni mbënd mi daf leen euh, sonal fii ci. waaw oh, mbokk internet du Sénégal 7 euh, voici la première dame de la République Marème fay Sall moo ngi ñëw fii ci euh, mairie bu Pikine ñëw pour euh, dimbale maire yi nga xam ne ñoo mbokk ci arrondissement bu Pikine ci ay dundu ceeb ak ay pompe désinfectant ñu ngi fii ñoo ngi dégg militants yi nga xam ne ñu ngi yuuxu di euh, dalal ki nga xam ne moo di première dame de la république di Marème Faye Sall. Ça c'est Pam Diamé Dieng. Le du Guinaw Rail Nord. Ça c'est Babou Ndoye. le maire de Thiaroye Gare. le maire de Thiaroye Gare. ça va na ngeen def. ça va ñoo ngi fi. Mbom, qui représente euh, Daouda Ndiaye, qui est parti à Darou Mousti. C'est pourquoi il n'est pas là. Voilà. Il y a... Première dame. Bordel complet.

donc situation exceptionnelle boobu mën na indi un impact exceptionnel bu xam ni nag mënul en rien remettre en cause qualité politique publique yi nga xam ne président de la république depuis mu nekk fi loolu la def si inondation euh, dañ koy seet rek si inondation yi nga xam ne laal na Sénégal sous région bi suñ de réew yi nga xam ne ñoom lañ dendal fu nekk jaar na fa fu nekk lam fa yàq moo ëpp li mu yàq senegal am na benn réew bu xam ne barki démb bu may dégg seen bilan dañu ñu ngi lim 45 bakkan yu xam ne inondation yi jël na ko fa donc boo tey réew mu mel ni Corée du Sud xam ne réew mu mag la économie bu mag la ñoo xëy ci loolu tey Japon ñoo jot bërki démb comme seen xam-xam xarañ na bañ koy séentu muy ñëw xam nañ dooleem ak lan la war yàq toxal nañ deux millions cinq cent mille personnes yu xam ne dañu leen génnee seen dëkkuwaay en se disant que ñii fiñ dëkk bu mbënd mi ñëwee buñ leen fa bàyyee dana yóbbu bakkan yu bari nañ génn bàyyi fa seeni kër ak seeni i alal bu mbënd mi ñëwee def ay dégâts matériels moo tax mu moo gën mu yóbbu ay bakkan donc il y a jours japonais yi deux millions cinq cent mille sept personnes lañ déplacé pour ñu bañ fa inondation bi bañ leen fa fekk il y a deux semaines états le en Floride en Louisiane ñoom la ouragan frappé donc doomu aadama xereñ na am na xam-xam waaye xamxamu xamu doomu aadama yeggagul fu xam ni mën nañ wax ne les forces de la nature bu ñu déchaîné woo alal mën na ko déggandu waaye nag je crois que président Macky Sall def na fi lu bari te gëm naa ni am na fi ndaje mi am na fi dëkk bi ñu xam ni xëy na bari nañu ñu mbas mi laal metti na fi ñoom waaye bari nañu xam ne daan nañ inondé si taw yu gën a ndaw taw yi bi yoon inondé wuñu nettalil nañ ma ñu ni ma barki démb am na benn maire bu xam ni àndul ak président Macky Sall sax si politique invité nañ ko télé nee ko waxal mu ne man kat mënuma wax parce que sama commune liggéeyu président Macky Sall moo tàqali sama commune ak inondation moo tax du ma mën a wax dara man mën naa jël man fa ma dëkk Nioro Dirib bi mu tawee samedi dimanche di ma jël sama téléphone di woo samay mbokk di leen ku xool ndax ndox mi yàqul fa dara kilifa gi ma njëkk a jot bi ma ko nee mbaa ndox mi yàqalu leen dara mu ne ma mani ma ne ko ah mu ne ma képp ku sant yàlla na nga ñaanal président Macky Sall ndax Nioro dëkku ravin la daa nekk ci xur ndox yaboot ko daanaka néew na luñ daan toog nawet ba nawet bi jeex te ndox bi yóbbul bakkan Nioro bokk nañ ci dëkk yi njëkk a bénéficier aussi plan décennal de lutte contre les inondations bi président Macky Sall dugal moo tax dëkk ba inondé ak feneen ak feneen. donc inondation lam daan yàq Sénégal wax dëgg yàlla. wàññeeku na tiis nag bu ñëwee moom toujours il faut bu métti. mbokk yim laal danañ leen mas maslawu jotali leen massa première dame. jot leen massa président. wan leen ne leen président bi nga xam ne moom lañ jël dénk ko seeni mbir ci réew mi. moo ngi suivre situation parce que plan décennal bi jeexagul dégg naa sax ay confusion ñu naan jël nañ 700 milliards def ko ci non. sept cent yi du xaalis bu teew buñ génnee benn yoon dañ ko budgétiser sur dix ans chaque année mu am luñ ci def lépp luñ ci def bu nawet ñëwee ñu xool gis ne mëtagul ñu jubbanti 2023 le plan bi war a jeex leçon yi jàngee fii li xew weekend bi tax na ba déjà dana am ay jubbanti yu xam ne danañ ko def parce que boo seetloo ñi gën a sonn cette fois ci événement bi duñ ñi daan gën inondé am na fi ñu bari inondé ju daawuñu inondé donc day doon ay champs yu bees yu xam ne plan décennal bi war na ko investir donc daal président mi ngi taxaw si wetu askan bi première daam tardeelu ko euh, indi na leen vingt moto pompe monsieur le maire boole si cinquante tonnes yi boole cinquante tonnes de boole si 5000 litres d'huile boole na fi 1000 junniy gorosu suukar. allahu akbar indi na ko parce que fu ñu ne inondation. dëgg la danañ soxla ñu génnee ndox bi. mais bu ndox bi génnee ba noppi xam nga ndox bu duggee ci kër lépp lay yàq am na ñu xam ne seen dund bi ñu gardé woon yàqu na moo tax mu prévoir si ay vivre ak ay dund muy contribution mu boole ko ak baatu massawu boole ko ak baasu ñëw bokk ak yéen seen diis feddale kóllëre ak yéen pacte la bu xam ni da ngeen ko signé woon yéen ak borom këram ak moom te pacte boobu moom fas na yéene fu mu toll mu honoré ko loolu mooy ay tànkam loolu moo ko fi yàlla yàlla guddal fanam monsieur le maire Alioune Fall yàlla yàlla guddal fanam Fall dama ci bëggoon yokk dégg ngeen loolu. la madame la jox leen 16000 litres carburant. 16000 litres carburant pour ñu ndox pour doxal moto pompe yi. madame la première dame jërëjëf. sondage la service la Sénégal day Sénégal yëpp ko a jóg waaye Pikine kenn ëppalewu ko fi nga ñëwee. ci population bi. fi nga ñëwee. mais lii toog nekk sa ginnaaw di jàppale sa borom kër oh, ak ñi nga xamante ne nii ak ñi nga xamante ñoom la ñu fal ñu nekk ci yeneen i parti fii nga ñëwee soxla leen ko population baa ngi nii léegi nag ñu bàyyi madame la présidente mu def remise symbolique bi maire yaa ngi nii madame la présidente maire yaa ngi ne la ci yaa ngi ne la ci ginnaaw. Ousseynou Diop a ngi sa ginnaaw. gis nga Fatou Ndiaye. maire Thion Tek Sow Amadou Diarra maire Pikine Ndaw a ngi noonu. Ndeysa Assane Sylla ngoog. Abo maa ngi nii Ablaye Pouy maire Mbaw. Ndeysa maire. Ah, ginnaaw raay Loor. Ah, Ibrahima Dieng mi ngi nii Ablaye Diop maire ginnaaw ray si dëgg ne Ndiaga Niang maire Thiaroye sur Mer Matar Diop waaw léegi nag euh, Lamine première dame dafay procéder à la remise symbolique pour moto pompe yi nga xam ne moom la indi léegi dañuy def la mesure remise symbolique bi Matar Diop mi ngi fi ak le maire Fatou Bintou ñëwal honorable député Awa Niang mi ngi noonu toog chef Adjatou Sophie Ndiaye Ba ci saara ngi noonu tubarkalla terrasse Senghor honorable député Salamata Kourera Ndong Ndofène Fall a ngi fi Assane Sylla mi ngi fi Omar Sow représentant Soxna Ndiaye représentant maire Daouda Ndiaye mi ngi fi Ndiaga Niang mi ngi fi maire Thiaroye Sur Mer Amadou Diarra Gaël Niang ngi fi ci Djidah Thiaroye Kaw mi ngi fi monsieur le maire teg na ci 16000 litres carburant monsieur le maire Pape Gorgui Ndong ministre Pape Gorgui Ndong monsieur le maire mi mi ngi fi Rama Mati sa xarit gis naa léegi première dame ni mu def ak yow Aïssatou Faye au conseil moom mi ngi fi madame la présidente tous les responsables sont là madame Mbodj xam naa ni sax yaa ko defal noonu